ci benn tàkku tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na mbokk yi téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàqu si tey nag defe naa ñu ngi biir Gambia ba tey ah defe naa ne face à face bi ngeen xam ne gis ngeen ko ci Equivox TV mu doxoon ci diggante Leget ak France ñu amaleen ko fan High Pauline di boo xam ne macha allah legs na mel ni mu war a mel mais li ma ci gën a impressionné mooy Gambien yi sorti génn bi ñu def maanaam génn ñëw fekk si face à face bi ci côté yépp di góor ñi di jigéen ñi mu amoon animation tëgg woy fecc promoteur yi Gambie yëpp ñëw ah mu mel ni démb daal Jamaïcain yëngal na High Pauline yëngal na Sénégambia jam nag mu ngi nii xam nga moom moo defoon affaire yi te tamit dafay baax ñu joxaat ko micro bi euh, mu delloo njukkal ay nitam mais itam defe naa ne mu wax ak ñi nga xam ne ñoom la bëgg waxal rawatina sénégal bi Sénégambia parce que Sénégal ak bi benn dëkk la jàmm maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay delloo ziar di la nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yu ñu suivre ci Equivox TV di nuyu sa caméraman Khoule Alaaji di la nuyu ziar bu baax a baax a baax sant yàlla julli Seydina Mohamed sang sang sant suñu ñaari waajur. sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp fépp fu waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew doomu Sénégal nekk ak doomu Gambie ñu ngi lay nuyu di nuyu sunu xarit sunu sunu di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaay moom tamit di nuyu waa Gambie gii ñu nekk jël nuyu bi di ko teg ci loxo président Adama Barrow ak képp ku nekk ci réew mi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax Babacar macha allah Adama Barrow ñu koy nuyu parce que tamit réew moo gis am na ku ne ca bopp ba moom la yàlla dogal mu nekk président Gambien di ko nuyu di nuy gouvernement Gambie bi yëpp jam dem li am ay Pauline loolu noo ko dundee après bi mu passé parce que démb la amoon tey di dimanche wala boog di lundi noo dundee démb euh, yëngu-yëngu boobu nga xam ne ne maanaam ci li ma am ci information mooy que ne France ak leket ku nekk bëggoon na leen a boole ci benn place ñu wax mais kenn mënu ko réussir. yow sax jiim nga ko def bu njëkk bi nga taxawale combat bi mu yàqu mais démb nga fexe ba mu réussir. waaw Babacar loolu moom ba ma ci laajee dinaa ci kontaan ndax ñun ay xale lañ ñëw ci làmb di jàng di tari bu ñu jàngee tari mokkul dañuy dem jëlaat suñu jukki jàngaat te bu ñëwaatee du yoon ñuy échec dañu war a mokkal ñu làmb ji yàgg nañ ci nekk ci ay xale. di jàng ci expérience suñuy papa yi fi nekk di tëgg làmb kenn ku ci nekk ñu am lu ñu jël si yow jàng koo pare boole kook ñun lu ñu jot am kon lépp lu ñu def bu essayé suñu ñëwaatee war nañ ci wane leneen France ak Leket nag dugg nga ci combat boo xam ne la ci histoire Gambie fii huit ans ku nekk bëgg nga ko kenn mënu ko taxawal juróom-ñetti at da ngay wax ak benn mbër sax ba jubóog moom dem ci beneen mbër ñu ne promoteur bi kii la njëkk a waxal moom la jubóog diir lañ teg wala dara combat bi kenn mënu ko taxawal kon ñun bu yàlla defee ñu jógee Sénégal ñëw fii di fi tëgg làmb suñu yaay nekk Gambien suñu papa nekk Sénégalais ñu nekk doomu Sénégambien bu ñu fi indee combat bu mag bàyyi ma joon xoyantaan Gambien yi génn gis na nu mu demee ñu pare amateur yëpp sollicité ñu jooy ñu ne ñun combat bi lañ bëgg ku ñu ko tëggal desaloo ñu dara ma dig leen dinaa ko tëgg boo xoolee avant combat boobu taxaw budget bi ñu si def kenn mësu ko def ci làmb Gàmbi waaw pour lay au lieu que ñu def lu leen neex indi seen mbégte ndax amateur yi la am ñun suñu ñëwee di tëgg làmb ñoom lañu am ak nitu làmb yi kon suñu jooytoo benn affaire ci làmb muy làmb joo xam ne bëgg nañ ko mënuñ koo am ñun dañu dafa jaadu ñu xaru ci ray suñu bopp pour combat boobu taxaw combat bi taxaw na waroon a am daaw corona bi tax amul boobu léegi ñu nekk ci di job di liggéey di góorgóorlu ba ren bi corona bi jeexee ñu ubbi nañ affaire yi ñu ubbi ñu jàpp signature contrat signature bi bi ñu ñëwee tamit li ko yàq xeex amu fa xuloo amu fa kenn gaañul kenn violence amu fa nit ñi ñoo bëri ba ñaari mbëri bi ñu duggee affaire bi toj mm. waaw waaye toj bi mu toj yëpp si discipline la kenn gaañul kenn kenn dóorul kenn dañ xam ne lii mënul àgg tey waaw ndax mbooloo mu toll nii président fédération bi wax ak ñun ñu jël ay ndogal tas ko. te loolu dégg naa ci stade bi laa amee woon. ci stade bi comme seen stadium Iba Mar bi. fa la amee woon si stadium bi waaw bii sax moo tax yóbbu waatuñ ko fa ñu indi ko high Pauline ndax high Pauline plate fermé la ñu limité ñi nga xam nañ dugg ndax nombre de place ndax bul fàtte na fii entreprenant ngay def face à face waaw limité ko boo xoolee ci trois jours lañ ko communiqué ndax waxuñ ko woon kenn boo fàttali ko dimanche bi ñu génn maa ngi woon Fatick waaw ci loolu laa nekkoon. Ah, parce que yow Fatick nga nekkoon dimanche passé weekend ba la génne drapeau monsieur le ministre sport Ba. ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax dimanche bi passé ñu ngi foo nekkoon ci communication Fatick bi ba mu passé jeudi lañ commencé communiquer ci face bi ñu bëri yëguñ ko si trois jours nga ñëw gis li nga gis démb yàgg nga dem ci face à waaye face à face mu mel noonu am ambiance boobu noonu ah c'est ma jàpp daal est ce a def waaw ñu ñëw tamit xam nga wan ne làmb ji mbëri si lañ bokk jël mbëru Gambie ndax boo xoolee dem Babacar ñëpp communication mooy tey face à face bi mosu fi am xam nga ànd ak partenaire welma solal mbëri pour ñu ñëw def ko yëfu noobul face à bi jàll ci jàmm ndax ñaari mbëri yoo xam ne lépp lu bañu ñu jaay fii ci réew mi mu jaar ñoom ñaar waaw dem dem gis naa loolu booy ut Balla Gaye ak Modou Lo lañ ci làmb ñoom ñaar géej moo dox seen diggante muy banju banjul baara géeju Banjul mu nekk der bi kuy dugg Gambie di nga jaar dëkku leket di nga jaar dëkku France féeri bi bu la jëree baara Banjul la lay wàccee waaw Banjul baara la lay wàccee leket mënul bëreeg France te du jaar Banjul wala ñoom ñu dugg ay gaal kana dem directement kaw kon combat bi dër bi bu ci nekk dafa doy waar ku ci nekk ne man maay buur fi ma nekk ñaari buur nag ndox dox seen diggante ñun ñu ñëw ah bëgg nekk buur rek moo tax ñu boole combat bi déggoo li ma la wax budget boobu noonu avant combat bi taxaw waxuma li nekk li toppaat ci ginnaawam kenn mosu woon ko def ci làmb Gàmbi li ñu leen fay kenn yaakaarutoon ne ñun dinañ làmb Gàmbi ñun dinañ jël budget boobu def ko ci. boo ma ko estimé loon tey bi ci ay millions ñaata la war a doon. waaw bu ñu ko ci ay millions plus de vingt millions mu ngi ci. waaw te yeneen yi ñëwagul communication beeg xam nga ñëwagul kon làmb ji làmb joo xam ne la dañ ci jël xaalis dugal ko ci au lieu que nag pour satisfaire leen ndax làmb Gàmbi Babacar. boo bàyyee xel fi làmb Sénégal tolloon 2006 fa la làmb gàmbi tolloon ndax làmb Sénégal fi mu tolloon 2006 mbër bu génnaan ci mbedd yi xale yi ndaw yi ñëpp ay daw topp la làmb ñëpp def ko mu nekk phénomène boo xam ne foofu fekk moom la ñuy waxtaanee koo gis boo demee si armuwaalam boo xaajee yére mi xaaj bi yëpp tisetu mbër lay doon làmb gàmbi nag foofu lañ toll guddi yi foofu lañ toll moo tax làmb ji bu ci gars yi dugalee seen loxo rek dina avancer dugal loxo boobu man damay defe naa ne sponsor war nga ko mën a am foog naa ne tey parce que tamit combat yi nga tëgg rawatina la nga def keroog Fatick def ko fii démb ci jaaxaarloo fas ko yoone def le 13 juin fi nga xam ne mooy Gambie fas yéene mois de août baay mu ñoon xoyantaan ak li ngay décentraliser loolu lépp nar a am ah e-, est-ce que ñi nga xam ne dañoo ay produit yu bëgg a jaay est-ce que topp jam ànd ak moom liggéey ak moom du gën a wóor. waaw Babacar da nga laal foo xam ne lu am solo nga laal. muy côté sponsoring ñun soo xoolee li ñuy def te amuñu benn sponsor bu ñu gungee su ñu amee sponsor def lu raw loolu ndax suñuy événement ñu ngi koy jox gëdd di ko jox ak image bi sat rafet kenn du ne jamaïcain combat am du ci def communication bu war te sponsor nag li mu bëgg mooy visibilité ak communication bu set bu jaar yoon te rawatina ñun ay xale bu fekkee da nga yor sa société di produire di produire ay ndaw li ngay def sànni woo ko ndax jamono jii àdduna bi yëpp daanaka quatre-vingt-quinze pour cent yi ay ndaw lañu ndaw ñi ñooy doxal àdduna ndaw ñi ñooy doon magu ëllëg ñoom lañ am ci ñoom yaakaar kon ñuy tàllal ñëpp loxo képp ku ci yor sa produit bëgg mu jar li nga ci soxla nga bëgg am ko ci àndal ak ñun di nga ko di nga ci gis lu kawe sa njort man sax jour damay wax sponsor bu bëgg ñëwal ñu signé contrat bul joxe dara. su ma liggéey ak yow deux semaines soo gisul sa bopp retiré sa sa produit. loolu doyul waaram. non xam naa li may liggéey te dinaa ko teg ci yoon di ko teg ci yoon tamit sax ndax làmb lépp communication la te ñun amateur dañ am suñu cofeel fans club bi am suñu cofeel kilifa yi am suñu cofeel kenn du jàpp sa télé gis fa image su làmb jamaïcain di ko toxal di nga ko bëgg a seetaan kenn du jàpp sa télé gis fa suñu produit di ko toxal di nga ko seetaan ko sponsor bi nag loolu la bëgg visibilité ñun dañuy tëgg làmb ay nit defee kaar senegal di ñëw di ànd ak ñun ngir lan nu ñu mel ak ñoom ak bu lu dara sa ay jeunes lañ ñu ngi liggéey ñu ñuy jàppale fii ci Gambie tamit noonu te Sénégal ak Gambie benn lañ tey ku yor Sénégal société war nga jël société bi intégré ko fii ci biir Gambie ndax ñaari réew yi ñëpp benn la ku am fii maam am nga ko fële kon tamit ñoom ñu yor société yi Sénégal bëgg mu intégré biir Gambie nañu ñëw ànd ak ñun ñu liggéey ndax société yu bari maa ngi leen di gis fii biir Gambie yu jógee Sénégal nekk fii biir Gambie te fii Gambie yàlla dogal na amateur yi jox nañ ma bopp fans club bi jox ma bopp kilifa yi jox ma ko kon nag ñu ngi tàllal loxo sponsor rek ak kilifa yi ku ñu mën a jàppale nga jàpp ñu ay ndaw la ñuy góorgóorlu di liggéey liggéey jaamu yàlla la waaw teg ko ci yoon du ñu dooleelee daal ñu am sponsor yi gars yi di am Babacar ñi nga xam ne ñun defaguñ ci làmb dara waaw kon de dañ lay ñaanal la ñuy ñaanal ñay rek maanaam doo ko ñaanal euh, rëy mais gudd fan nga koy ñaanal su guddee fan moom téwér xam naa dana rëy euh, mais su ma ñëwee tamit sa digganteeg promoteur parce que démb gis naa promoteur Gambie yëpp ñëw nekk derrière yow naa sa ginnaaw ñoom ñëpp ñoom Jibal Touré ñoom Luc Nicolas yi bu ma limee dinaa jum bëri nañu mooy foofu tamit relation bi daa mel ni tax na de wala. waaw waaw loolu dañ ci sant yàlla ndax ñun bu ñu xewlee promoteurs yëpp ñëw wax dëgg yàlla def nañ li leen war ndax làmb làmb la ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ak baay ñun tey dañ ñëw rek buñ ñëwee tey Gàmbi di fi indi ay événement jël làmb Gàmbi di ci ko jox yenn gëdd yi pour benn ñoom sponsor promoteurs yi fi nekk la ak mbër yi kenn ku si nekk nga am njàngat ci ñun li ñuy def ndax buy alal ñoo ñooñu ko ëpp xañ na sax ñoo ñu ëpp xaalis foofu waaye nag mun naa am ñun ñu ëpp leen stratégie wala ñun ñu ëpp leen expérience ci tëgg làmbu wala ñun ñu ëpp leen jàppale kon du affaire bi du ay affaire u jaxasoo wala affaire noonoo ñu ànd nekk benn l'union c'est la force kenn ku ci nekk nga jël si sa morom man jël naa si ñoom bi ma ñëwee ndax ñëw naa fekk fi ñuy tëgg làmb gis naa ne làmb gàm bi ma koy seetaan si di gis public bi nit ñi ñëwee ak sécurité bi fii ne sécurité bi fii ne bu loon Sénégal la mënuñu sax sécurité open press si làmb gàm bi laa dox de te làmb day yegg ci jàmm doo gis xeer doo gis xuloo doo gis dara kon produit boobu noonu ku ko jël exploité ko mun na indi dara moo tax ñun bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla fu waaye mën a nekk ci àdduna di ñu suivre xam nga ni làmb Gàmbi ñun dafa am fu ñu ko yóbbu ndax làmb Gàmbi ñu bëri tey bu koy bàyyi xel ah du ma ne joué nañ si rôle de waaye buy 10 pour cent dañ ko ci def waaw ñëw nañ fexe intégré si presse Sénégal bi ñuy ñëw bu ci mel ni yéen ngeen di ñëw ci face à face yi di ñëw ci combat yi di jël vidéo yi di jël mbëri interview lu jiitu man ma fiy ñëw amul fii benn site internet ah buy déplacé au Sénégal ñëw fii di jël mbëru Gambie kon loolu lañ ci bëgg pour làmb ji avancé ndax Sénégal ak Gambie benn lañ promoteur bu amee sa journée senegal nga ñëw Gambie indi ko fi Gambien yi kenn gënu leen bëgg làmb promoteur am Gambie journée yóbbu ko senegal ñun loolu lañ ci jublu loolu mooy suñu wareef ñaari réew yi ñoo ñu meññ bu ñu sañoon ñaari réew yi nii la ñuy def te di tàllal loxo ñëpp promoteur yëpp. ku ci am sa événement Sénégal mu nar la xatal indi ko Gambie boo ci gisul la kawee sa njortu ñëwal ma remboursé la. lamb lamb waaw. macha allah loolu ma ne kon sa diggante ak ñoom ratax na et puis tamit yokk nga parce que olof na ku yokkul yaa wante loolu moom mooy li am yokk nga ci xar mi karaw maanaam yokk nga ci làmbu Gambia visibilité yokk nga ci gëdd lool moom Gambien yi xam nañ ko te yaakaar naa ne tamit reconnaître nañ ko mais tey fi may jeexal ak fa nga xam ne moo di ci kër Gaston Mbengue diggante ma Pape Thialis Faye ñu doo xam ne amoon na ab ñagas-ñagas ba ay wax amoon ci yaa ngi dégg doonte père Gaston sax nee na ma yéen jaxasekat yi la parce que <laughs> yéen xam moom moom man bokk naa si ñi mi mu gën a yab ak déemam Malick déemam yaa ngi dégg loolu mu mel ni euh, loolu am na ñu bëri ñu ñu ko rafetlu daal ku mel ni Aziz Ndiaye tamit ci li ñu gis wala ci liñ ci xam ñun mu dox ci ay tànku jàmm ba loolu mën a am waaw Babacar loolu ñun dañ koy rafetlu ndax ñoom suñuy papa waaw ku ci mel ni Jalis ku ci mel ni Père Gaston Aziz Ndiaye ñoom ñëpp ay kilifa lañ ci làmb tey bu demee ba réeroo nar a am ñu taxaw trouver terrain d'entente waxtaan juboo joxante loxo même bu ñu nekkutoon làmb entre jullit ak jullit sénégalais ak moromam ku ko rafetlu rek buggoo jàmm wala nekkoo nit ku baax lu ñuy rafetlu la te lu mel noonu ñun dañuy gën a may fit ndax ñun suñu ñëwee ci làmb nekk ay xale ñoom ñoo tax ñun ñu ñëw ci làmb ñoom ñoo fi nekkoon jiitu ñu fi di tëgg ay làmb daa ngi dégg làmb du ñu neex ñu bëgg ko ñuy dem seetaani seeni làmb di jàng ba tey ñun ñëw nekk promoteur nekk ay xale su ñu ñëwee gis si ñoom lu rafet loolu ñun tamit dañuy topp ci tànk yooyu waaw di rafetlu nag loolu wax dëgg yàlla Père Gaston nit ku baax la ki démb ñëw na sama làmb Fatick waaw taxaw see waxal ma ñaax ma yokk mu fit xam nga ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko wax ne nit ñi nañ ko comprendre léegi-léegi sax man nañu ma am damay naan Gaston bu ndaw non c'est làmb dafa métti làmb boo ci nekkee jël sa alal di ko ci def foo jaar nekk bañkat làmb nit dina ci waxee noo xam ne sax mel melul noonu làmb mais pression baay bëri non non du pression làmb soo foo ci nekkee da yor jikkoy signal jikkoy mooy waaw yoral jikkoy jaan ak jikkoy signal yoral jikkoy jaan ratax ba ku la teg lox mu baraste ko waaye yoral timal jikkoy signal yor say dëkk ku la bëgg a jam nga waaw ba ku la bëgg ku la xët ku la xët yëg ko loolu mooy làmb ñu bari nag duñu comprendre loolu am na si ñoo xam ne soo leen fekkee ci làmb nga fekk leen seen kër wala nga toog ak ñoom da xam ne du ñii ba làmb moom bindoo noonu soo ci yoree yenn jikko yi xam nga ñu nekk xam nga rek mooy loolu mbiru làmb la daal waaye per per Gaston ñu ngi koy ñaanal li mu sumb nii yal na ko yàlla yeggaleek jàmm. Aziz tamit wax dëgg yàlla li mu def rafet na nekk ci làmb gaa tëggatul waaye ba léegi dindi loxoom ci làmb mu ngi gunge promoteur yi lu mu gis lu dëng mu taxaw ci xool nu mu leen ni defaree wala lu mu leen ni boolantee loolu nag dañ koy ñaanal yàlla gën ko ci kàttanal gën ko dooleel ndax barki Dembo Njaay la jógee Màkka umra su ñëwee def sets bu mel nii dañuy wane ne ah la muy la ko yëkkati woon mission ba ñaan nga nangu na te man na loolu la ñuy xaar ci moom bu ko neexoon génnee loxoom ci làmb waaye mu ngi soutenir làmb te na mbooloo wala askan boo ci teralee kenn wala nga jàppale si kenn jàppale nga ñëpp buy jàppale sax benn mbëru làmb wala benn promoteur jàppale na promoteur yëpp jàppale na làmb yëpp jàppale na askanu làmb yëpp ndax benn mbër boobu noonu ci làmb la bokk ci làmb la askanoo promoteur boobu ci làmb la bokk ci làmb la askanoo te moom mu ngi jàppale promoteur yëpp waaye nag na ñëw fii ci Gambie. mu ñëw Gambia. waaw non nañ Zador na ñëw Gambie. Zador Zador à Gambia. waaw à ah, Gambie comme Sénégal ba nga fa. te man maa ngi Sénégal maa ngi Gambie man dama bëgg mu ñëw Gambie. kon daal Aziz da na la jox Zador nga dugal ko Gambie. dugal ko Gambie. na ñëw jox ko ci dara yow na la ko na la jox produit yi rek. na ñëw Gambie rek na ñëw Gambie bu ñëwee Gambie dina gis résultat bi. war gawaak. na lépp na ñëw Gambie. vermicelle na ñëw Gambie. macaroni ji. ba mooy trio de soc. spaghetti trio de soc la macaroni war ma sel. <laughs> expecté couscous <laughs> añ reer ndékki am na tee boo pare waaw tee bi te waaw na ñëw gàmbi rek lépp ci Zado non na na ñëw gàmbi bu ñëwee gàmbi gis naa ne sax yi moom dafa sama jumul sponsorisé na la gisoo ni nga leeree al amin day xam nga daa baax te xam nga yow yow ndaanaan nga xam naa gaa yi ñoom dañ ciy añ di ci ndékki te yow léeg-léeg sa is dooy def sa loxo diw ndax diw gër foo ko yóbbu <laughs> te nag toggal na ma ci ginaar yu doy waar korite <laughs> te yemoo te yemoo ci añ rek da nga diw léegi. niin kay rek la. loolu daal loolu daal lu ñuy rafetlu la wax dëgg yàlla di ko xaar ci ci ñoom. ay kilifa lañ kenn ku ci nekk jalis combat bi mu jëm yàlla génnee ko ceeg jàmm mu am ci lu kawe njortam Père Gaston yi mu jëm yàlla génnee ko ceeg jàmm. waa Gambey ko fee xaar Ligue Nicolas tamit combat bi mu jëm yàlla génnee ko seeg jàmm waa Gambey koy xaar kon làmb la Pape Abdou Fall. diggante Siteu ak Papa ñu ngi koy ñaanal mooy président promoteur yi xam nga yàlla defal ko ci lu kawe njortam Dieye seen président authentique mu ngi jëm ci Gris 2 Abdou Diouf Fallou Ndiaye Idali Assane ñoom Mor Mbaye bul fàtte Vox Arena Vox Vox Arena borom la neuf borom la neuf loolu zone journée la ndax moom wax dëgg yàlla bulul dara dafa am exemple bu mu wane da ngeen ñëw ubbi seen sit di liggéey ci làmb ba pare ne da ngeen di participer waat ci làmb lu mel nii su ko loolu ñëpp def coow du am mbir boo ci nekkee mu lay teral même boo ci amul sax lu la satisfaire nga ciy am fukki dërëm ne mankat kat dinaa jël fukki dërëm yooyu yokk ci yeneen juróom defaat ko ci mbir mi ñooñu dañ leen war a saluer welcome leen na ñëpp ñëw def noonu làmb ji yaatu làmb ji avancé mbëri bëree man su ma toogee dégg ñu naan dadi jax na sama xol day sedd ndax mbëri dañu war di bëree ñu ne làmb dox na loolu la ñuy xaar si ñëpp di nuyu idaal yi tamit moom tamit mu ngi bay waaram xam nga ñoom promoteur yëpp ma kenn per Jax maman Ndeye Ndiaye tey seen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñoom Baba jaw ñoom Thiam production ñu ngi leen di ziar ñoom tamit mu ngi jëm soq gàmmu gay la siis ñëpp bàyyiwuñ kenn képp kuy promoteur rek man maa ngi lay ziar bu maax Jibi Ndiaye Jibson. Jibson Jibson production kenn du ko. borom sewlees borom sewlef bëttul waaw sewlef ñu ngi koy jaar bu baax sàmbay production waaw borom caaro yi borom caaro yi ñu ngi koy nuyu ñoom ñëpp ay liggéeykat lañ ay jàmbaar lañ di ñëw fii Gàmbi tam di nuyu promoteurs yi fi nekk yëpp di leen di ziar bu baax yow di la ziar ndax Sénégal ak Gàmbi sore nañ sorewul bàyyi lépp xam nga ñëw boobu léegi yaa ngi sonn say nelaw doyul démb xërën ñu ngi fi xërën rek mais tooñ nga ma nag est-ce que duma la ko baal ah parce que nit di nelaw nga di ko film. xam nga yow suma xarit nga filmé yi da nga ko gisee tooñ waaye du tooñ non may ma du tooñ. jam man sa kilifa la. waaw d'accord du tooñ dama bëgg a woon gars yi rek. ñu xam ñu xam yéen li ngeen di daj. loo ci loo jaar filmé. ñu xam li ngeen daj ndax doo ko wax fii ci micro ndax xërën yi nga xërën démb. non vraiment ku sonnul mënu ko. xam nga Gambien yi Gambien yi gars yi xërën yooyu gars yi. yaa bon <laughs> benn benn waay laa dégg fi mu fooru fooru bi jàng mu ne ndax bukki moo fi nekk yow doo wax dëgg ndax bu kenn mais sa digganteeg Idrissa Ndiaye bàyyi sunu xarit la wax dëgg yàlla parce que jël naa ko tamit mu am lu mu wax ci yow sunu xarit la ñun Babacar Gambie bépp sénégalais bu ñu fi fekk wala gambien bu ñu fekk Sénégal dafa am lu ñuy jëflanteeg yow dëkk bi yàlla def na xaw nañ fi am expérience ñu ñëw dajee feek moom mu nekk doomu Sénégal nekk ndaw comme ñun wax dëgg yàlla lu ñu war a def mooy di nemmeekuwante di seetante di jàppalante yaa ngi dégg loolu mooy sunu wareef idi nekk nit ku baax wax dëgg yàlla bi ñu xamante ba tey rëccute amul si lépp lu ñu dugg fii ci Gambie fii ci Sénégal dina ci def dëgg day tungoom seedeem de noonu bi jamay kee wax la sëñ bi dugg si sëñ bi de bu la neexee jël waxtaanoon nañ démb waaye dama bëgg kon nga ñëw tëj vidéo ah. kaay kaay kaay kaay sëñ bi parce que démb am na loo loo ma wax si jamayke te defe naa loolu laa ko doon laaj léegi seen diggante mu ne daal ah diggante la boo xam ne daal euh, defe naa ne daal rafet gi foo ko takk weesu na ko. waaw euh, alhamdulilah ñu nuyuwaat moo ko internet yëpp di leen nuyu yow Babacar di nuyu moom jam waaw jam nag doon na nit ku baax waaw ndax bi ma ñëwee Gambie mun naa wax ni moom laa mujjee xam waaye li ma defal biir Gambie ña ma njëkk xam sax defal ñu ma ko. parce que day sonn samay mbir su ma waree ñëw mu lijjanti fi ma war a nekk dañuy jël otom bi taal ko dugg di di nekk suñuy course ak yu ne ñu ci dem mu may boole ay nit ñu baax nag di ma boole ay kilifa ba Sénégal tamit kon euh, nit ki su lay defal teraanga googu munoo loolu taxaw taxaw ci ay waam rek <laughs> te dañuy ñaan yàlla ànd bi yàlla lafal cat rek. <laughs> loolu am na solo sa mooy Idrissa ak Daawur dégg nga wax ji jam looy tëjee ci ci li sa wax. sëtul ak Daawur yokk naa sëtu fii Gambie moom. waaw Maître Moron mooy boroom Gàmbi. mooy rab wi mooy rabu Gàmbi bi xam nga Maître Moron nag Lac Daawur moom. waaw ñoo seq géej <laughs> waaw mami wataa nga Côte <laughs> kane ndar num tuddati maam Kumba Bang moo nekk ndar waaw ak maam Kantañi maam Kantañi moom ne moo nekk si géeju ndar gi maam Kumba Bang nekk si dex bi mhm. mami wata moo nekk Côte d'Ivoire mami wata sax mu ngi naan mu ngi Côte mais mu ngi Casamance gi di la dégg Gàmbi ki fi ne mooy. Gàmbi mooy meete mooy meete mooy moo doon moom tuurul nañ ko fi defar nañ ko ay sarax fii bi ñu fi ñëwee ndax ab réew moom soo fi ñëwee moom gis la fa nekk moom danga koy danga koy jox la moom rek. da léemu dëkk bi ba pare. waaw mhm. tëngéej ku fa nekkati nu mu tudd. tëngéej Kumba Lamba Ndooy. waaw mais bëri na ñu fa nekk nag waaye Kumba làmbandooy Ndooy moo fa nekk mooy tet bi. waaw moo jiit bari ñi na. waaw am na. Ah. am na Jibi Diop. am na Maatulli. waaw ñoom ñëpp. Maxulli bu gi wayoon na ko. Ah, Maatulli sama bàjjen moo ko doon tuur mais sama bàjjen bi ba mu ba mu gaañoo matagul sax 5 mois. muy mboose puy doomu yaa may mun a fay. Mhm, mhm. mbuur géej. mbuur euh, Massamba yee dëcc ma sa mbuur moo fa nekk. nga ñëw Fatick maam Mindis. maam damay dégg Adama Diouf di ko. nga ñëw cees euh, Khoudia Badiane. Khoudia Badiane. Mhm. nga ñëw Jam ñaaja maam Yoro. nga dem Jurbel euh, nga fekk fa Numbe Diop. mooy Bawal. waaw Numbe Diop moo nekk moo nekk Jurbel ah, kon xam nga ni mbir yi xam nañ lépp. Saalum. Saalum euh, euh, Bar <laughs> réew mi xam sa bopp dafa neex de. maa ngi jéggalu ndeke sa nelaw yi démb yi tayoo ko. ngay dem bay dugg Gàmbi xamoo Gàmbi rawaan bi. nu ah, ma koy xame doo ma ko laaj. waa laaju ma waaye xam naa ko léegi. booy duggati Gàmbi boo tollee ci frontière bi woo ma. lu ma war a def woo ma ma wax la rabu gàmbi bi rawaan bi nelaw yi nga fi métti nelaw démb du sa sago bi dina ma maa ngi jéggalu ci filmé bi ma la filmé sax tooñ nga ma de ah, tooñ kat la nag waaw di la ziar Babacar di wax ne nag démb boo xoolee yaa ngi woon signature bi kenn nettalu lu fa am communication gambien yëpp seen wax mooy li ñu fi gis tey mosuñ ko gis mbër yi première fois mbër mu si jël micro lu muy wax Babacar maa ngi door a sol costume ñëpp diisuñu ragaluñu rusuñu koo wax ñun nag dañuy wax ne lëg bu lekkee aloom na ko gërëmee cooy tey bu ñu demee ba mën a def innovation boobu fii ci Gambie sax Sénégal sax mun naa wax ne Gambie ak Sénégal yëpp ndax ku fi tëgg combat tamit mbëri di sol costume grand combat bi rek alaan sol man nag ma ñëw spécial yeeg ñëpp kon loolu loolu mun nañu wax ne ci soir muy Sénégal ak yëpp jam production ku njëkk def ci làmb mu bëri bëri journée bi yëpp nga solo leen ko. ku la defal loolu. loolu suñu demee ba mun ko def dañ ci ànd ak partenaire boo xam ne. Velma la bière de VIP borom 3W point Velma boutique point com. Velma nga xam ne foo mën a nekk ah ci àdduna ñu jëflanteeg yow. no du fàtte benn VIP. no du fàtte oui ma du fàtte benn VIP. musuma sol kosa. boo demee dakaar boo demee Dakar. Velma moom moom Velma. maa ngi lay lancé appel Babacar bu jógee dakaar moo technicien ma caméramanam yëpp nañu ñëw directement Sacré-Cœur xam nga fa. en face jeex na en face kër Mbaye Gueye Faye mooy ak sëñ bi sëñ bi mooy solal mooy mooy solal Mbaye Gueye Faye costume bu mu sol wel maa ko jox moom moo ak soxnaam kilifa yu bëri nag ministère yi ngay gis ñuy baatare di coordonné téye téye kawnu bi di liggéey lu sénégalais yi naw lu sénégalais yi respecté ministère yooyu Welma moo leen di solal directeur bu bëgg yàgg sa post di nga dem seeti Welma promoteur tamit bu bëgg a téye Sénégal ak Gambie di yëngal dama seeti Welma la vierge VIP kenn jam jam kontaan ci yow ci yow ñaanal la jàmm xewal sutura nuyu grand mor bu baax a baax a baax foo gis cam production gis ko fa lépp moom la dinañ suñ benn xarit Babacar di ko ziar bu baax di dinañ suñu papa suñu xarit Père Ba suñu kilifa tey baax a ngi soo gisee jooy ñu sponsor Père Ba yorul produit de yorul société xam naa ne du yorul société waaye xam naa ne baax na ci réew mooy sama sponsor leader wax dëgg yàlla su ma jooyul sponsor Père ndax mu ngi may jàppale ci côté yëpp te amul produit bu mu ma jox amul dara daf ma jël def ma doom di ma jàppale bu may tëgg làmb tey père ba moo tax ay doomam di ma jàppale ku ci mel ni Mansour Ba directeur borom Casamance maa ngi koy ziar bu baax may ba borom nice and sick may kenn du wax sa jigéen sama jigéen yi nga xam ne moom jigéen gi tamit ku bëgg mu ab habillé la jigéen ñi waaw non may muy jaayee ba mu jaay dara yoo xam ne dina ko soxla yow xam nga hélas yow mi Mor waxi noonu yow mi waaj a takk ñaareel wax waxi wax damay tey bàyyi sa wax ji te ñu te yow mi waaj a takk ñaareel sa bi yëg damal <laughs> seeti may ba moom ñaareel bi lañ bañ ko ko tudd damay naxaat ma ko tudd déedéet non do amul problème man góor yàlla la takk ñaareel dafa aay yàlla na takk leen ba ñeent te ñu ngi lay lancer appel solennellement Babacar bu dee bokku bokku wërsëg la ko gorom la du jëm. kon ah dëggal ko kon. te looloo am loolu amul muskila yàlla dogal na ko parce xamala la ñun ay taalibe lañ seex bi sëñ bi ñun ay taalibe lañ bu gisee ku ñu bëgg lu ñu fi nekk di laaxatu amul problème moo gën nekk ci mbedd mi di di def di def man ni ngay def laay ba <laughs> yaakaar lu mel ni mbaamum noor yoroo buum tool ne nga dugg ca ngéddal jaambur lu ne nga bëtt loolu laa doon fi def newuma ci yooyu. dama yaakaaroon da ngay bëgg a kaase wu dama yaakaaroon da ngay tëgg da ngay da ngay da ngay nëbb takk gi waaye comme nëbb man dinaa takk soxna di ko nëbb man ban gédd laa dugg jaamu yàlla la man ban ban gédd laa dugg dama laa xam dama laa yar man may xale bu ndaw man maa ko yar noo bàyyi déedéet dama koo yar kii dama koo xam dafa mas a sob sopp la mën a la def. mais ma noo film noo femme noo aaya noo bimbang comme ni ko waa nan jeexal. jël naa ko ci moom waaw baax na di la bu baax. di la jox sa wàccuwaay di nuyu grand mor. man xam hélas. hélas maa ngi koy ziar bu baax hélas Diouf Seydou maman maa ngi koy ziar bu baax di nuyu di nuyu xulle borom borom so borom soo koon xulle maa ngi koy ziar. Aliou Baye ak Fatick xulle sax waa Fatick la. ah xulle xulle koy ziar borom Nioro borom Nioro borom Fatick. di ko nuyu di nuyu waa sëñ bi di nuyu fu ñu nekk nii di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm xewal sutura Babacar dinay nuyu père baak njabootam gi yëpp. di wax itam seede faatu bu baax a baax a baax. di di di di seede tamit lenn rek macha allah bi ñu fi ñu wax dëgg yàlla topp too nga ñu parce que tamit dëgg moom yàlla moo ko moom ñam wi doy na defe naa boo xoo boo xool fii di nga gis lépp a ngi fi tege. amul lu fi manqué macha allah loolu tamit ñu ngi la ciy remercier di la wax ne rek comme ni ñuy wax rek moo am solo ah? voilà kon ak ak yi nga yóbbu maanaam bëri na macha allah quoi yëpp yëpp am na fi du ndox bi du lekk bi du tëdduwaay bi du lépp di la gërëm di la ziar di ñaan tamit comme ni ko ni nga ko wax sa diggante ak Idrissa na ko yàlla gën a sàmm ndax Sénégal moom leen na fi am rek diggante moom bu ngeen dee ànd na ngeen di ànd te yàlla tax ndax ñi yàq dañoo bëri ñi jaxase dañoo bëri Idrissa mi yaakaar naa ne démb waxtaan na ak moom mais wax dëgg yàlla c'est la première fois ñu toog mais wax dëgg yàlla reconnaissance bi mu am ci man rek loolu dafa neex ci xol ci kuy liggéey kon Idrissa yow tam maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaan yàlla ah yaakaar ji am ci yow ba di la seet si yàlla na nga gën di man di faj soxlaay nit yi jàmm yow tamit yàlla na la yàlla gën a kàttanal ba tey fi ñu séentu ñoom Luc Nicolaï ak ñoom suñu papa Gaston Mbengue nga demb ba romb leen pourquoi pas ndax defe naa père Gaston Mbengue la mu wax kera waxu ko ngir jëtale ay fleur ndax Gaston moom ku ko xam xam ne itam li mu bëgg a dina ko wax ndax la mu la waxal kera Fatick loolu soññu la soññu la te man tamit maa ngi lay waxaat rek la Mohamed Ndao Tyson doon wax dafa am solo ci nit maanaam nit ki booy gañee dama ko doon dégg si carrière mu ne booy gagné da ngay gagné avec humilité mais booy ñàkk nga ñàkk avec dignité Tyson loolu laa lay soññe rek amal humilité amal dignité ñaar yi boo ko boolee bu soobee suñu borom foo bëgg a dem di nga fa dem ba beneen yoon incha allah. moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa